gërëm leen bu baax sant leen ci ànd bi ngeen àndandoog Feeling Dakar la chaîne leader am mbégte saa su nekk di àndandoog yéen ci euh, jataay bi lay nga xamante ne bii mooy li ci euh, jamono ji euh, tey nag sama régisseur Alioune si moom mayuma sax ma takk samay ne te xam nga samay bët baax <laughs> ah, alors mi ngoogu di gërëm bu baax mbokk na di nga xamante ne bii ñu ngi ñuy teewlu un peu partout à travers le monde fii ci Sénégal Euh, comme ni nu koy defee euh, donc euh, tous les dimanches ak mercredi li ci jamono ji di waxtaane tolluwaayu jamono li ci xew tey nag la ñu nar a waxtaane bokk na ci doomi Zal make-up ji réeroon yàlla def na ci sutura ba feeñ na sax naam waaye am na ay révélation yu bëri yoo xamante ne bii euh, jot na cee xew ka sàccoon xale bi ak euh, na mu def ba sàcc kooku loolu yëpp daañ ci dikk naam mu ngi leen ko toppaloon du début à la fin daañ waxtaane itam ci euh, biir émission bi mbir ma nga xew fële ci frontière bu Maroc ay sénégalais yi nga xamante ne bi doon nañu jéem a franchir diggante barage boobu nga xamante ne bi moo am diggante Maroc ak Espagne ba ay xeex am ci xeexoo yu bëri sénégalais yu bëri Mm, ñàkk ci seen bakkan ay immigré euh, lu toll ci vingt quatre personnes ñàkk ci seen bakkan waaye ñu bëri itam blessé ci ba euh, am nañu ay vidéo waaye dafa sensible kenn mënu ko sax daanaka euh, teg ci ab télévision yaakaar naa ne àdduna bi yëpp yëg nañu yooyu la xibaar léegi léegi bu ma nuyoog suma ay chroniqueur ñu àndandoo ci bàjjen maa ngi lay nuyu. Bamba maa ngi lay fay. di la jaajëfal di la jox sa wàccuwaay di nuyu ami téléspectateur euh, Feeling Dakar yi ñu safoo di ñu seetaan ak euh, fépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi rek ku ci nekk fekk nañ la fa nga toog di la jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci barke Seydouna Muhammad macha allah amiin jërëjëfati euh, Badiane noonu laay nuyu Alaaji Mbay mi nga xamante ne bi itam moom laa ci àndandool tous les dimanches Alaaji Bamba maa ngi lay siyaare lu ma nuyu Badiane parce que nuyu ma ah. daa danaa nuyu gërëm la internet yi mais man duma ko nuyu tey quoi eh, nuyu naa kon grave bàyyil ma sarax ko rek nuyu ko. <laughs> Uh-huh. waaye Bamba maa ngi am mbégte ah, ak contenté di teewaat ci plateau bi nga xamante ni. Uh-huh. Euh, ce plateau chaleureux de Feeling Dakar euh, di bég di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér. Uh-huh. di ñaanal euh, Serigne Saliou Ndigal Thioune mu yàgg fi loolu te wér ah. di bég di bég lool ah, di bég parce que li tax ma ni di bég mooy. waa gis nañ temps yi Feeling Dakar liggéey bi muy liggéey ci dëkk bi te sama sac la à chaque fois may ma toog ci plateau bi damay amaat fierte ci toogaat ci plateau bi ndax liggéey bu rafet bi nga xam Feeling Dakar mi ngi koy liggéey ci biir dëkk bi mhm. te population bi soxla ko mhm. Mhm, c'est ça jërëjëfati El Hadj mbay ñu ngi lay gërëm bu baax a baax merci beaucoup yow itam di gërëm en tout cas euh, internet yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy teewlu euh, bu baax a baax fépp fu ñu man di nekk rek ci àdduna bi nga xar naa ni euh, Alioune du côté de la régie dinañu préparer ay éléments yoo xamante ne bi dinañu réfléchir un peu les mémoires ci mbir mi nga xamante ne bi xewoon na fi semaine bi yëpp Zal Makeup nekk foofu ci match zing donc ñu sàccoon doomam mu ciy soog a jot démb déjà yow yaa defoon Diagne euh, boobaak léegi euh, bokk nga ci ñi topp mbir mi euh, foofu noonu démb la xale bi feeñ waaye dañu bëgg a dellusiwaat ci fee yi naka la demee du début à fin ñu waxtaane ko laataa ñu dëkk nag ci sababu sàcc xale yi. Mhm, mi ngi demee commencement bi. Mhm. moom bi ñu demee seen kër information yu ñu jox mooy dañu xëy diggante 9h ba 10h. Ah, parce que bi nee na bi oto mbalit bi ñëwee ba maa ngi naan ko di ko tooñ sax naan ko xanaa biru oto mbalit bi moo tax yéen déggu leen xale bi ñu koy jël parce que xale su fekkee ne dañ ko jël xamul ki ko jël mun na yuuxu wala mu jooy parce que ñoom nee nañ xale bi xamul ku dul yaayam parce que yaay ji bi mu amee doom ba pare dafa dem kër yaayam nàmpal ji xale bi ñoom rek la miin te su la xamul lu ñëw ci yow euh, mais nag euh, nit pour man su lay jël rek dem bay dugg sa kër. dafa fekk mu xam la ba affaire bi mu feeñee noonu la demee Bamba. parce que dañ ko fekk xale bi ci biir kër gi daal koy jël yóbbu bi mu koy jël di yóbbu nag euh, nee nañ am na xale boo xam ne am na 11 ans ci biir kër gi lañ ko yónnee woon mburu mais xale boobu dëkku fa dafay fréquenté. mu daal ne eh tante diw diw diw man de gis naa bébé Aïda am ko ko jël bokk ko fii di waaxu rek waaye kooku xàmmeewu ma ko ci biir kër gi wala ci koñ bi mais xale boobu mënul daw topp ci parce que 11 ans la am. parce que yóbbu na bébé Aïda léegi après xale bi mu jëlee mburu bi euh, teg ko ci biir kër gi gaaw xam nga rek des fois ñi dafay ñëw naan la bamba lii lii nga naan non kii dafay mbalak wala dara mhm. parce que ñoom odo bi gëmuñu ko woon mhm. après bi ñuy génn dem di wër jàddu gauche jàddu droite mhm. gisuñu dara dara ñu ne ah peut-être lii ay mbalak la xale bi ne leen non non kafuma ñu dugg ci biir kër gi wër fépp fépp fépp gisuñu xale bi ñu daal ne ah léegi nag euh, seen benn doom Farma mag la ci xale bi mu daal ne fee am na caméra surveillance est-ce que duñ dem foofu ñu daal di xool léegi bi mu demee si euh, waa ji kii am foofu place daal ko koy wax ne ko pour ñu romb fii waaj ji tamit ne ko ah du ko gëm daal. Mhm. léegi après seen waa kër bi ñu ñëwee ñoom ñëpp après waa ji daal koy gëm mais image yi am na image yoo xam ne leeru mhm. parce que ñaari vidéo yi ñu am yëpp. après bi mujjee am leer na nañ parce que comme li ma wax nit dafa dafa dafa dafa fort nit dafa màgg sàcc bu njëkk ay sàcc téléphone lañ daan dégg ay sàcc matériel mais suñu nee bay sàcc nit tamit ah kon dafay yombee noonu. Hmm. Zal nag ndeysaan metti woon na lool ci moom ak yaay ji fu nekk dem na fa comme li mu wax démb kilifa yéeg ah Sénégal moom dem na dem ba ñu koy woo sax ñoo xam ne xamu leen parce que bébé Aïda dafa dafa dund dafa bokk ci euh, xolu. àdduna bi sax laay wax macha allah liggéeyam yàqu ndax zaal massa zeng la nekk di make up di pose ay cils ah xamul lu dul teral ay famille macha allah kon kooku daf ko bëgg a yàqal. ba démb euh, Bamba bi ma defee ak ñoom interview am na benn gel bu ma laaj moom mu ne ma. man kat li ma jaaxal mooy ki ko jël ci seen biir la parce que dañoo ñëw rek ñu ne port bi duñ ko tijji ah presque def nañ ak 30 minutes bi muy man ah muy Ali muy Mor muy Abdou Khoudia ñu ne porte bi daal ak kenn du ko tijji ndax ki jël xale bi ñoomi neen la kon waxtaanu famille la. Mhm. ñu ñibbi sax am na ay coow yu méttee méttee. ñu ne ki jël euh, ki sàccoon xale bi ci ñoomu neen la. ñoomi neen la ci seen biir bokk loolu moo tax porte bi nangu ñu ko woon a tijji wax ji doy waar lool ah, mbooloo mi bari lool ku nekk di wax waaye wax jooju daal yéem na ma lool jaaxal na ma parce que moment bi may. yow teg foofu sa baaraam. Uh-huh. Euh, ma ñëwaat ci euh, yaakaar naa ne Aline dinañu préparer li nga xamante ne bii mooy euh, démb bi xale bi feeñee parce que xam naa ne loolu c'est révélation de taille mooy kii sàccoon xale bi ñoomu nen la cest à ko kon ci ñoom la bokk ci biir famille bi la bokk xaj na wala ku leen jege la c'est proche dinañ ko leeral uh-huh. am na ci ay mbir yoo xamante ne bi dafa sensible la bu ñu waxee wàllum mbokk wàllu wax wàllu famille wàllu wax wàllu ku leen jege am na ci loo xam ne xaj na dinañ ko leeral am na loo xam ne duñu ko mën a leeral mm-hmm. euh, li ñu ci euh, mën a leeral dinañ leen ko leeralal léegi-léegi ak bàjjan mi nga xamante ne bi toppaloon nañu reportage bi mais alaaji Zal Makeup la dëkk yéen bi ngeen yegee xibaar bi euh, déjà au niveau de Pikine mu nekk toole boo xamante ne bi tey bu ñu demee ba jamono toll ci Mm, comme ni ko bàjjeen waxee léegi sàccatuñu xaalis sàccatuñu xar mooy ñuy sàcc nit ak i noppam. waaw mhm. non tout d'abord euh, Bamba dañuy sant yàlla mm. sant yàlla ci feeñ gi bébé de feeñ. Mm. parce que affaire la boo xam ni bon frappé woon na Sénégal. parce que li tax frappé woon na Sénégal mooy un bébé de deux mois. et demi presque mi ngi noonu image yaa ngi. Mhm. ki ko ki ko mhm. sàccoon ki ma ko jëloon. un bébé boo xam ne am na un un an et demi daam mënul boppam dara xamul ku dul ay kooku bu demee gisuñu ko non seulement liy njëkk a inquiété loo parent am rek mooy ci yenn condition la nekk parce que mënalul boppam dara. Hmm. donc kon sant yàlla la bi mu bi ko ay parents am retrouvé li tax nag ma ne ñëpp la metti mooy xale bi non seulement elle est adorable. mais aussi ku euh, d'après man miinuma papaam bi suis de Pikine mais miinuma papaam mais d'après euh, témoignage yi ngay dégg que ni papaam nit ku baax la nit la ku ouvert nit la ku jaxasoog ñëpp kon loolu encore une fois bu fekkee ni dafa dal koo xamante nit ñi seedal nañ ko lu baax même bu daloon sax koo xamante ni peut-être que c'est le contraire doo doo ko yéene rawat na mu doon koo xam ne benn témoignage bi la am moom la ko ñëpp seedal muy baax encore une fois dañ ciy santaat yàlla. Mhm. bon Pikine nag moom loolu touché wul Pikine rek. Mhm. Sénégal gépp loo touché. parce que statut danga daan gis à chaque fois boo duggee statut Bébé Aïda li ñuy dugal. Mhm. Bébé Aïda la ñuy dugal te da gis koo xam ne dëkkul Pikine dëkk na sax dans les régions nga am statut mais da ngay gis mu dugal Bébé Aïda. mu doon loo xamante ni peut-être métti woon na Sénégal gépp te mu doon une chose boo xamante ni aussi nit ñi war nañ cee veewaat jugaat ci amaat ci. Euh, Euh, comment dirais-je vigilance aussi. Mhm. pour contrôler seen doom xool seeni doom ci naka la ñuy nekkee ak yan kii la ñuy nekk a chaque fois. d'accord euh, merci beaucoup El Hadj dinaa ñëwaat ci yow. mais Badiane yaa ngi doon wax lu am solo euh, léegi nii. Euh, nga xamante ne bi yaakaar naa damay bàyyi Alioune mu tegal ñu benn élément ñu soog a dellu si ci Badiane ngir ay parce que révélation yi mu nar a joxe nii faw ñu teewlu élément bi d'abord soog a ñëwaat indi ci ay éclaircissement indi ci ay précision donc du euh, côté de la régie Aline su fekkee euh, pare nga parce que itam débat la boo xamante ne bii ma fàttali ca kanam tuuti daa ci àndandoo ak internautes yi ñu mën a participer euh, ku ci nekk wax ci xalaatam ak fi réew mi toll bu ñu demee ba ñuy sàcc ay nit et puis ñu koy sàcc. Mm-hmm. dana nekk nit yoo xamante ne bi kenn foogul woon ne ñoom ñoo mën a sàcc yooyu la xale. Aline bu élément bi pare mën nañ ko teewlu dellusiwaat su fekkee parewul aussi mën nañu jàll façon ci bàjjan. salaamaaleykum ñëpp waaw ñoo ngi kontaan bu baax a baax di fekk fii suñu yaay ah bébé ay def feeñ si jàmm salaam maman ban mbégte nga yëg. salaamaaleykum wa rahmatulah. nga waa Tëngéej. <laughs> maa ngi sant ñëpp. <laughs> monde bi laay sant. film jum monde bi laay sant. waa diaspora bi ñëpp laay sant. ñëpp a jooy. ñëpp a ñaan. ñëpp a daw ñëpp a seen alal doom ji ko jur de ñu bokk ak moom benn deret waaye tey ñëpp la ñu bokkal yéen ku leen du ma wax bu boobaa nga xam ne kon man du ma gor bàjjan laa ñu ànd di liggéey ngeen daw woowuma leen ngeen daw ak seen ñaq lekku leen naanu leen mbond bu kenn lekku kenn naanu du police du bàjjan du journaliste du mbokk du keneen du sëriñ du ñëpp Touba Njaareem Laayeen Tiwaawan Ñaseen Xaadir Canaba Canaba ñëpp képp kuy wax lu baax rek ñaan Eva Marie Coll Seck la naan ma maa ngi waxanteeg nii Maram Faye Sall kon nga xam ne yëf dem na sax ba ci Macky may ñaan lii sama doom ji feeñee yàlla ci yàlla def jàmm. Aïda macha allah dafa mel ne nag moom bébé Aïda moo ngi euh, police su Pikine te mu egg si incha kooka macha allah mbay mu rëy laa moom ah, la Ndeye Gueye. waaw Ndeye ah, nga ñëw fi fekk fi xale yi allah gars yi kontaan loolu bébé ay def feeñ na. waaw ah, sant yàlla sant Serigne Touba di wax jërëjëf Serigne Touba. téye leen seen doom yi yaay yi téye leen seen doom yi jërëjëf Serigne Touba téye leen seen donc bi ngi doonu cette foule immense foofu noonu ci Pikine nga xamante ne bi démb euh, sunu ay reporter ñu ngi fa woon à savoir Badiane mi toog ak euh, abdu ñu def ci liggéey bu am solo mm, boo xamante ne bi àdduna yëpp tey ñu ngi ci euh, félicité Feeling Dakar waaye itam même famille bi nga xamante ne bi mooy famille Zal Make-up Zal ci boppam kontaan na ci liggéeyu Feeling Dakar yaakaar naa ni boobaak tey euh, tooguñu euh, di ci def liggéey ngir euh, xale bi mën a dellusiwaat ci jàmm hmm, parce que itam loolu mooy suñu liggéey alors bàjjen da wax ay révélation yu am solo léegi ñu bëgg cee dellusiwaat parce que xale bi ñëpp dañoo jàppoon ne ki ko sàcc inconnu la ndekete ki ko sàcc ci boppam am na ay rapport ak famille bi mm-hmm. waaw comme li ma wax sànq rek bi ma interrogé parce que man loolu laa yaakaaroon benn daam dane ma doo dugg ma ne ko lu taxaw mu ne ma parce que ñoomi neen la ki ko jël ci seen biir la ma ne ko loolu doy na waar di ba jamono jooju may wax ak moom sax zaal ci la demee euh, police Pikine ba zaal bi ñu ko laajee ndeysaan moom mënul woon wax parce que benn instant yéeg na ci kaw daal di jooy ndax nee na doom dafa sax ci xol parce que moom dafa yërëmoon yaayam kon man a chaque li may wax rek mooy nit ki soo jotee ak élage yow ak la mais bul ci boolee xale parce que xale moomil na xamul dara parce que xam nga ne six jours bamba xale fanaanu ko ci yaayam ba pare di nàmp feragul loolu dafa metti mhm. te xale bi wër na fépp mhm. aman aman nag keneen ku ma jël mu ne ma xale bi wër na syndicat ah wër na fu nekk dem nañ ñu ngi yaakaar ne dëkk bu nekk la xale bi nekk fu nekk woon nañu fa ndakate yoo xale bi mu ngi biir Pikine am na sëriñ yoo xam ne wax nañ leen ne leen mi ngi biir Pikine parce que yàlla am na ñoo xam ne daf leen a may mhm. Mm-hmm. dañ doon wër fu ne ñu dem fa xale bi ngi wér Pikine mm-hmm. Zale arrêté woon na liggéeyam parce que mënatul liggéey parce que doom dafa sax ci xol ndax yërëm na yaayam xale bi mooy taawu Zale mm-hmm. fu nekk ndeysaan Zale di fa dem lépp lu amoon joxe na ko ah ba daal ciy cité euh, Serigne Abdou Karim macha allah yal na yàlla guddal fanam dem na ci moom defal ko ci ay ñaan ah Fuuta yenn Serigne ba démb sax am na Serigne boo xam ne euh, génn na ci image yi mu ngi woon pikin ba naan moom moo ko feeñal ndax ñëpp a doon ñaan li El wax léegi léegi ba ba de dafa sax ci xol yi. mu nekkoon lu metti lool su ma mosoon a wootee kër ga ñoom dañ naan mënatuñoo añ mënatuñoo reer parce que xam nga élage ki nga xam ne tey yàlla daf ko jël mu génn àdduna mun nga ne kii dafa génn àdduna mm-hmm. ba tey bokkul mm-hmm. ndax sa xel di nga xam fu muy féete ki nga xam ne dañ ko rey da nga kii dañ ko rey mm-hmm. mais ki nga xamante ne ni ndeysaan dañ ko jël deewagul xamoo kii fan la placé wu loolu dafa metti loolu macha allah euh, dafa metti ki nga xamante ne bi dafa génn euh, àdduna sax mën nañ ko fàtte waaye ki réer duñu ko fàtte mukk man xam naa ci dara. Mm-hmm. yow démb bi affaire bi amee fala la fekk bi ñuy euh, waa Pikine euh, police bu Pikine. Mm-hmm. parce que xale bi bi mu nee feeñ na. ci pense mm-hmm. que police bi ci boppam ñoo déclaré ne feeñ na après ñoom ñoo indi xale bi. mais bi mu indee bi ñu indee xale bi déjà am na ay coow yoo xamante ne bi amoon na fa ca kër ga. xale bi ñëwul. ñun bi ñu fa nekkee parce que nee naa man musuma gis doolu am na benn paa bu ne ma fii lañ dëkk yàgg nañ fi mooy ci oto ci mbedd oto mbalit yi Pikine mosul am xale bu ñu sàcc côté boobu koñ boobu musuñu ko gis. parce que mbooloo mi macha allah dafa bari parce que dama naan Bébé Aïda dafa sax ci xoru nit ñi yàlla na ko yàlla guddal fanam. Mm. ñu dund ba koy mur muy sëyi mais kenn xajul Pikine parce que ñëpp ñu ngi Pikine. macha allah wax ji bari ba bi ñuy ñibbi ñun am na benn coow bu xew ci seen biir kon ndaw si li mu waxoon dama koy confirmer parce que ñoomi neen la parce que waa kaw ñu ngi jote ak waa suuf ku nekk di wax ba summeeku xeex di fa waaj am nit ñi di kalmante ba mën naa ne lan la loolu am na lu xew ñoom ci seen biir zaal moom moo ñëw am ñu mu àndal bi mu ñëwee xale bi ñëwul ñu ne xale bi dafa am ay quelque du ko dal ak yooyu xam naa pour gars yi la parce que xale la en plus dafay nàmp ak mbooloo noonu xam naa dañ ko waxee noonu parce que du ñu mën a indi xale bi rek. donc xale buy nàmp la ñu sàcc. xale buy nàmp bu am un ay six mois moom la ñu sàcc fekk ko benn këram muy fa ñu sàcc ko te xale bi ñu koy sàcc ñu ngi yor caabi benn maamam wala doomu bàjjanam atelier jàmbur xale bi. ba maa ngi tooñ borom atelier bi sax naan ko maa dajje nga sa place bi démb waaye sant yàlla alhamdulilah xale bi nag démb ñëwul ñun après bi ñu ñibbee ba nit ñëpp dem ci lañ indee xale bi ci biir kër gi. mais mun bu ñëpp ñibbee ci lañ indee xale bi ci biir kër gi parce que moment boobu Pikine bari na mbooloo boo xam ne xale bi mënul woon dugg parce que su ñëwoon ak miir bi mun na miir ak yuuxoo yi ba pare waa ko ñoom zaal démb dañu kontaan. man dama naan fee macha allah foo sànni martu mu toj comme sonkorong ba ca ginnaaw Banjul parce que waa ko ñoom zaal kontaan nañ ndox maa ngi wàcc sarax yaa ngi wàcc nga xam ne kon tey ñoom seen xaalis bamba fere nañ ko ci te ndeysaan kon kooku tooñ na leen. Hmm. parce que liggéeyu zaal daf doon yàqu ndax comme li ma wax événement jub si na tabaski incha allah c'est pour bientôt. mais Euh, mais mais mais je pense que lu ñu war a def taxaw seetlu la El Hadj Mbaye mhm. Mhm. parce que xam naa bàjjan yor na yeneen révélation yu ñu war a joxewaat ci kanam. Mhm. Euh, am na ci yoo xamante ne bi dañu koy génne benn pax benn mais ni ñu koy génnee. dañu koy sekk parce que dafa sensible. problème mu famille la malgré tout problème mu famille la ki sàcc du inconnu ki jëloon xale bi du inconnu waaw d'après ay information yu nu am du inconnu parce que bu fekkee ne sàcc nañu sàcc bi feeñ. waa kër gi ci boppam du di xeex wala nar a xeex cest à que am na lu euh, xew loo xamante ne bi euh, di nga ci ñëw naam mais érage xale bi nga xamante ni bi ferakul un mois la un an six mois six di nàmp ñu yóbbu ko pendant six jours pendant six jours ñu jóg feeñ démb je pense que loolu am na danger bu mu mën a jural xale bi ah mais bien sûr bien sûr parce que xamul tax lii dafa nekk un phénomène boo xamante ni Bamba lu ci ba bébàyyi de la njëkkee parce que euh, bu ñu retourner en deux mille dix neuf. Hmm. Euh, pré campagne électorale yi wala avant élection yi ñu dégg ay xale yu doon réer. Hmm. à chaque fois ñu koy dégg lii aussi boo demee ci dëkku ñag yi dafa bari trop trop trop parce que maa ngi seetaan keroog ci internet bi koo xam ne dafa éventré benn xale bi xam nga jël ay organam et tout donc. mais mu nekk loo xamante ni par exemple mun na nekk danger ci xale bi li tax mun na nekk danger ci xale bi mun na parce que contexte yi taxaw pour nit war ko mën a def day bari bi ci njëkk mooy mën na nekk dañ ko jël pour def ko peut-être des sacrifices quelque chose comme ça comprendre nga xamaguñ. Ah, mais bu ñu doon def sacrifice je pense que sacrifice bon peut-être ça dépend ci sacrifice yi parce que man aussi du ma féticheur mais sacrifice boo ko dee def ci xale boo yóbboo xale bi du dellu si waat. waaw ah non ça dépend. mais nag mën na dellu si waat parce que xamul ta mën na dellu si waat. Mm-hmm. bon mën nañ la jox dara par exemple bon je sais pas du ma féticheur mais sama xalaat rek laay joxe sama point de vue. nga féticheur yooyu tam. waaw ma ne du ma mais sa point de vue mun nañ la wax ne la nangam ngay def rey ginaar ci kaw xale ndax xam nga kenn du taxaw nangu ñuy rey ginaar sa doom. <laughs> sa kaw doom donc mun nañoo enlever xale bi yóbbu ko. ci ko def it mën na ko def par jalousie. comme da ngay fanaanoog liir. waaw da ngay liir da ngay xale bu mënugul wax xale bu amagul bàkkaar xale bu xamul dara moom xam nga. <laughs> Eh, eh, loolu lépp mën na nekk. Mm. comprendre nga. Mm. mu nekk ay affaires yoo xamante ni. lu doy waar surtout jamono ji mm. jamono jii parce que man Bamba. Euh, man je ne mange pas mes damay gis à chaque fois ñu jublu ay élections. dañuy gis yu mel nii di am. Mhm. comprendre nga loolu mhm. sax beneen débat la mhm. mais li mais mais mun na bañ a nekk aussi sacrifice mun na nekk jalousie jalousie ci lan parce que gis nañ le li nga xamante ni moo xewoon Sébikotane boo xamante ni dafa égorger doomu wujju peccorgom parce que dafa mere yaay ci xam nga mun na nekk au de la famille li ko ni ko bàjjen waxee mu nekk quelqu'un boo xamante ni dafa jël doom ji peut-être pour naqaral yaay ji wala pour jéem a sànk doom ji parce que bi amoon sa xotaan moom je parle affaire wujje la affaire wujje la mun na nekk loolu mun na nekk aussi yi këpp puisque période liggéeyam dafa dox man samay analyse rek laay def puisque liggéeyam dafa dox ñu nekk ci veillu tabaski mun nañ koo peut-être brouiller wala perturber ko mantalement ba du am temps wu liggéeyam mun na nekk concurrence boo xamante ni ci seen wàllu liggéey lay doon selon mois pour euh, troubler ko mantalement ba liggéeyam du xam nga contexte yi taxaw day bari lool. mais problème bi mooy li ci nekk rek mooy danger mun na ci am parce que danger mi weesuwul jël doomu jaamur yóbbu ko xale boo xam ne xamul yaayam euh, xamul ko dul yaayam xamul ko dul papaam nga jël ko pendant des jour euh, yóbbu ko. Mm. kenn mënta xam loo ci jublu woon. Mhm. donc moom ki ko yóbbu woon rek moo mën a xam lim ci def. ak mhm. peut bu ko euh, yoon yoon poussé. à ce que mu def ses aveux. effectivement et je pense que bàjjan yoon euh, du euh, dafay bàyyi boo gisee yenn détails sax bëgguñ cee dugg. Ah, parce que ñoom dañuy eggale seen liggéey la ñu wax. exactement yoon mhm. dafay eggale liggéeyam. famille bi je pense que doon nañu wax avant mais bi xale bi ñëwee waxatuñu. parce que mbir mi ñu ngi ko bàyyi. parce que waa ji nga xam ne dafa àndoon nag Zal macha allah. Mhm. si je me trompe la xaw ma. Mhm. Euh, mooy waaju ji ñun euh, ji moom la ñu woo ne ko xale bi mi ngi fii mu taal otoom dem dëkk bu sori rek te yoo xale bu nekk fa nee na presque cinq jours ah, ba six jours ba ni xale bi di feeñee moo ngi ànd ak police mu nekk loo xamante ne nii dafa metti lool. mais euh, li ma jaaxal mooy gars yi ko ci interroger ñu ci bari rek dañ naan parents yi nañ tëye xale yi dëgg la Bamba. Mhm. parents yi nañ tëye xale yi mais d'autre part tamit du ci parents yi. parce que xale bi yaayam moment bi ñu koy jël yaayam mi ngi doon togg añ mais Bamba nan la duggee sa kër xale amul fu dul këram kon suñu demee bay dugg ci biir kër di sàcc xale yi tamit doo comprendre xanaa doo mën a liggéey dafay jàpp doomam di ko boot le temps mais xale bi dafa war a fowi xale bi di fo après xelam dafay tijjeeku muy xàmmee kii El Hadj xàmmee Bamba xàmmee Aline xàmmee kaneen mais dugg si biir kër nit daal di koy jël ba pare ñu naan yi nañ téye xale yi soxnaam def na lu mu mën te na xale bi diggante 9 heures 10 heures la. kon ndaw si ko jël moom moo yebaate mais yoon na continuer def liggéeyam parce que moom euh, Matar bi mu ko laajee dana moom du xuus bu baax en tout cas xale bi gis nañ ko Zal est-ce que xale bi mu ngi ci jàmm wala newul ci jàmm Zal foofu bëggoon na jooy mais dafa tëye. Mhm. boppam xam ne góor la mais mhm. tontuwuñu foofu dane en tout cas gis naa ko nan lay def mu ne ni papa di def wala doom di def ak yaayam pour sama yaram dafa daw parce que xale bi nga xam ne dafay nàmp nga tëye ko tëye ko 6 jours. xamul du weenu yaayam ndeysaan yaram bi dina tàng lool léegi xale boobu su demee ba septième jour mu gis yaayam du fàtte de ndax yaay kenn mënu ko fàtte mais après day xaw a parce que li mu nekk si ñoom dafay xaw a yàgg tuuti même su dee six jours la mm. baa ma juróom benn fan du lu ndaw mm. juróom benn fan nekkul ndaw mais man li may wax chaque jour dama koy répété ci samay parole soo xuloowee ak zaal yow ak zaal la demal palaasu zaal nga defante ak zaal soo xuloowee ak soxnaam yéen ñaar la mais bu jël ay doom di ko ci boole ñun doo xam sax